kon ma ngi rafetlu bu baax a baax a baax sen baax ak sen jëf aljuma ju ne ci aljuma yi ku bes ko xam nekul sax senegal sop wi ginaaw bu ko tele bi da di wax ni dugal len ma ci sase sama adiya ngi ngir jëm yalla wax wax nga deug Baye Cheikh Seydina Ousmane mi génn legi tay lañu musa gisse gise ko laaje kay nga musa gisse lañ tay waaye ata ngi maa ngi koy topp bërki démb la woote Touba mok seen Omar Fall moom mu àndal dina ma dégg ni ndax mi ci groupe tay tey na ci ma wuyu ba wuyoo ci sasi def na ben reaction manam al ni Omar sant na la ndax gëw mën won ki dina ko jot ay atangi ngi muy wax ay wax ma di ko jëfe ni ma bala maa wax de dama dama laa amel lu ma la war a weexal ma ne ko la mun ma bi kuyit bi amee dangaa joxe woon ñaari rakk maa ngi leen koy joxaat yéen mooy bi ngay jàng Fatiha ak ñeent fukki fàllaxe ak benn ak julli la deuxième rakk nga defaat Fatiha def ñeent fukki naasi ak benn. faatee 41 falaxe faatee 41 naasi moom mii moo moo moo wax loolu tey loolu defoon nañ ko yàgg na at yee soo noppee ba toog nga jàngat faatee bi juróom-ñaar def 18 falax def 18 naasi ma ne waa mun ma sëñ bi ba sama doom kowitee ne fañ nekk fees ku ne ñu hospitalisé sa kër ñépp tiit. bima sama soxna wax dama ko ni bal ma def li sëñ hmm def ko ci kaas jox len nu nan neena gennuma sa keur ba ñepp wér ña nga xamanteni nan nañ ko dara jotu len mu no man safa falaxeeg naa si boo nga waxone ci la faaji sama njabot mako wax amna ci kenen ko xamni ni dañ ni luma lu def sama la ko daan defee jigen la dañu tudd tur welax yi ñu waxe ni waaye su ma ko déggee dana ko xam ndax mo ci Canada nee ma wo sama dom ni ko jappal ma dom mo ñew fekk ko fi ne làcc ci lal bi di japp ni ñu japp ci loxo tanki mu nat mu ne ko bu fexel ba jox ma kurus ma jox ne mata ma ma tàllal loxo fi tàllal loxo fi nekk ca ba mat ma ëf ko sabbi dong di nan rek mu ne ma waye dom mané ma ne ma ngi ni tok ah nee la ma la ma daloon wér na moom loolu la wax fi la jëlee juma bi noppee ñu recevoir ko mu dugg ci yëf yi foofu adde yu bari dama fi bàyyi léegi dem ne ma eggee Dakar nag la ma la yéene naa ko andi la ko dama la woon seet loolu kat jataay bii ci lañ ko jëlee. dëgg ngeen ko fonk ci képp ko am aajo comme doon ci yéen. gis nga gis nga gis nga sëñ Mor ña ca ña ca ña ca wa bu ñu xaar ñu tàbbi ci teen bi ñu ñu ne ci pind bi ñu toog di xool barke dem wax fii ci allahuma lakk alhamdu kama yanbaxi li jalaali wajhika wa asami sultaanika ma wax la ne du la jëlal temps bu bari te du la coûter dépense bu bari te dana yëkkati nit ci àdduna ba tàbbal ko àjjana benn soxna ne ci Italie yi ne ma dama koo liggéey mu neex ma dolliwaat ko ma tëdd ci guddi gi gént dem àjjana bokk ci bokk ci waa orul hindi moom soxna si vocal baa ngi man moo ko yëg mu ne waaye man li ma jaaxal mooy dama xamul waa àjjana nu mel waaye man dama yëg ci sama bopp damaa gën a gudd ba noppi gën a rëy ba noppi gën a xees nee bi ma nee tëll ki ma yàlla boole woon daa yow nga sama borom kër ni ma kii di yokk loolu la ma wax ci wokaan waaye nag dama tiit ndax sëñ bi damaa xamul loolu damay bëgga a dem foo xam déet <laughs> la yàlla wax suñ nee na yéen soxna yi bu ngeen tegoo ci yoon soxna ma dem yàlla ne ina an sax na an dama leen di tëggaat tëggaat def naa moom ngeen def réformé xawma inna ansahnahu ansaha na borom ne damay teggat soxna yi ansaha benen façon wu teggin bu bes. yalla ne fa jahalnahu na sona mare mi yalla du ko tàbbal ajan ni nii mel nii na ko fa jahalnahu na ab kaara ab jànq fi ne bu ne majana boo xam ne fukkat ak ñeent lay doon laa la wax de te yàlla jomb na koo taabal àjjana mu gàtte nii mu gàtte du ko def da koy yuqi imaam ñaata meetar lañuy doon mu ñu tàbbi àjjana soixante yaakaar naa xaw naa takku de waaw su boobaa soxna Marème mooy sut mbaar mi ba noppi nag mbagg yi dina fi gën a yaatu maa la wax lii doxin yu jekk nak lay am bu boba ma bay ngeen ko xel yalla xamna na ko ni fii ni ngeen melni yalla tam manam jom mu leen tàbbal àjjana nii ah seen xar kanam yi ni bindo bindoo yi kenn ko yóbbu fa jahalna huna abkara yalla neena soxna yi na seen xel dal ci man andi ma aljana ngeen sonal bo bo nop ma leen tabbi aljana ngeen melat ni ma rax dana benn affaire te danaa koy seetlu xaw ma nag yéen ngeen ko seetlu jigéen ji waaj a sëyi wala bu amee tu tànk ba waaj eh, dugg ci bisam lu ñaaw ñaaw ñaaw lu ñuul ñuul ñuul mu ci eggee dinaa gis ñu jang-jangee ko yóbbu ko ci benn barab <laughs> seetlu leen lool hmm? day am mbokk yee koy dar yenu ko indil mako ci dugal ko ci ci eh, ci ben ben ben ben ben ben barab han waye sun ko soppé ba genn ko ba fat ko deggé han su génné yow ñuko momon bo gor gorlu da nga ndax bi moy sa bes dal na ousmane lolu gis nako fi dal na ousmane mi wa yaakar na waaw yeen aduna bu ngeen mané lolu motax borom bi lu la wax oh. bala nga fi nek di sikki sàkk yow seetal yow rek ba xam dal len ak jamm ci sen sen bi di sama dine tv So bëggee di jot ci vidéo yu am njariñ yi bayiko fi ci sen bi da ngay ñëw bëss fi ñu bind sabonné so noppé nga dal di bëss cross bi nga dal di activer bi ci kaw moy tax ben njariñ du la raw